asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu fii ci jumaay jannatul mawa eh, di leen xamal ni rek am nañu pas-pasu dundal ndigal li fii ci jumaay jannatul mawa ci ndigalul sëriñ bi ndax sëriñ Muntaxa moo joxe ndigal li ndigal li jaar na ci sëriñ Cheikh moom sëriñ Saalihu ñëw ci Cheikh Mouhamadul Mourtada mi nga xam ni moo ko nekkal fii mu jox nu ko ñun ñu ko nekkal ci jumaa ji ñu di leen xamal ni danañ ko dundel fii incha allahu taala ci e, ni ko sëriñ bi diglee bis fajaru ko àllarba ji ba e, six heures njàngum xasida ak nag lépp loo xamante ne lii rek mën nañ ko fi am ci ay xeeti xéwale yu jëm ci yu mel noonu ba kenn ku ne ku jóg rek mën a ñëw fii nga xam ne ñoo dëkk Jannatul Mawa. bis bi bisub xasida la. kon may woo mboolem jàngkat yi xasida yi nga xam ne dañoo nekk fii ci janatul mahwa ak li ko ëmb ak li ci aju yëpp fu mel ni umul xuraa ba daaru tanzil ba mbàkke bawal ba fi waay mën a nekk rek ngay soppe ngay xarit ngay am di jàmm ngay yëngu ci xasida yi wala ngay bëggee xasida na nga xam ne am nañu ndigal dundal bis bi fii ànd kook waa janatul mahwa yi nga xam ne ñoo fi nekk di magi magi jumaa ji ñu leen di ñaan ngeen xam ne bis boobu bu ñëwee du bis boo xam ne day mel ne yeneen bis yi bis la boo xam ne borom moo ko tànnal boppam am nu mu ko bëggale boppam kuy ñëw na nga ko waajal te xam ne euh, boo ñëwee incha allah na nga war a def da nga fekk ñu la wa ñu la wan ni ngay def euh, na nga war a la nga la nga war a jàngee itam da fekk ñoo xam ne danañ la wan ni nga war a jàngee li ci am solo daal mooy maa ngi woo jàngkat yëpp. ci wàllu organisation nga xam ni fi laa féetee ñu ci waxee la nga xam ni toll nañ ko ci waajtaay di ko yëgal mbooleem Jannatul Mahwa ak magi kër Serigne Saliou Mbacké yi ñëpp ñu ngi leen di yëgal organisation bi nañ nga xam ne noonu ñu ko def woon ci koor gi ba sëriñ bi xolam sedd ci noonu ñu ngi ciy woowaat ñëpp te bëgg ñu ànd kook ñun. kon képp ku di taalibe fu mu fi mën a nekk ci kaw suuf bàyyil xel bàyyil xel barab bi te waajal ko ci ndox ci lépp loo xam ne organisation laaj na ko ci mbooloo ak ci melokaan wu rafet ak toogin wu rafet ak déggoog ñi nga xam ne ñoo yor wàllu organisation bi ñu leen ñu ngi leen koy bàyyiloo xel. toogin wu rafet di déglu ñi nga xam ne ñoo yor organisation yi dina am màndarga yoo xam ne ku leen gis xam ni ñooñu ñoo ko yor fuñ ci jëmee nit ñu xam ni foofa na déglu seen i ndigal te bañ a am ak wóote ak ñoom niñ ko def woon ci koor gi ba lépp rafet ñu ngi ciy woo ñëpp. ñun ñi nga xam ne ñoo féete woon ci wàllu culturel gi ñu ngi ciy woo mbooleem ñi nga xam ne ay jàngkatu xasiida lañ te nekk ci gox bi di leen soññ bu baax ñoom ñëpp ñu ñëw ndax bis bi bisu la. jàng xasida xasida na ku koy jàng war ngaa am aw melokaan melokaan wi nga xam ni moom la sëriñ bi bëgg ko ni mel mooy waajal sa bopp ci jëmm waajal sa bopp ci ab ak taalibe waajal sa bopp tamit ci ab euh, ab yar aku toogin kon ñu ngi ciy soññ euh, mbokki taalibe yëpp ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci jantul maxwa di ci soññ itam niñ ko waxee léegi sëñ Mouhamadou Mourtada mboolem taalibeem yi nga xam ne ñu ngi ci gox yi fasantikoo yi ci réew mi barab bi itam bu ñu fi agsee ñu sàmmoonteeg barab bi sàmmanteeg barab bi di ko sëñ bi bëgg ndax kat suñ mu taxaa dafa bëgg ñu defee kon ni nga xam ne noonu la ko sëñ bi bëgg ndax suñ mag bi kat daa bëggoon jataay murit fu mu masaan a toog góor ñi beru jigéen ñi beru su ko defee ñenn ñu nekk am kiiraay lu dox seen diggante ba kenn ku nekk doo joteeg sa morom dara kon loolu ñu ngi koy soññ ak te te loolu mooy sàmmanteeg barab bi sàmmanteeg euh, euh, worma yi nga xam ni moom la moom la dëkk bi laaj waaye sàmmanteeg euh, worma yi nga xam ni moom la bés bi laaj.